waaye nit ki bu wooree yëg xiif yëg tumuranke loola mën na koo yëgloo ne ñi du ñi ñiy dund ci loolu nag waxtu wu nekk lu dul koor xolam dana tooy dana leen yërëm fu mu gisee ku xiif dana xam mettitu xiif dana yëg xiif li mettee ba tax dana sawar ci di dimbale koo xam ne dafa aajowoo dimbalante googu nag doon loo xam ne waxtu yépp lañ koy soxla waaye rawatina buñ nekkee ci waxtu jafe-jafe muy jamonoy jafe-jafe yu mu mel ne jamono ji ñu nekk jamono ji ñu nekk soxla na lool dimbalente waaye gis nañ bu baax a baax ndigal yi nga xam ne suñu kilifa gi yàlla na ko fi yàlla yàggal te yokk wér muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ndigal yim ci joxe waaye wane ci yoon bëgg ñuy taxawu ñëpp ñu nekk ci ay jafe-jafe ñëpp ñu nekk ci ay coona taxaw ci taxawaay bu fés boo xam ne ñëpp gis nañ ko ngir mu jublu ci jàngale ngir jublu ci wane yoon wi nga xam ne moom lañu lislaam digal mooy dimbalanteeg suñu moroomi jullit yoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe kon loola kenn ku nekk war na caa gën góor góorlu ci biir weer wi waaye bu weer wi yeesoo it lam ca doon def ca man ko mu bañ caa wàññi dara bu ko mënta yokk it kon loolu yenn la rekk ci yi nga xam ne lu ñuy jànge la ci koor muy ay jikko yu ama am solo yoo xam ne bu weer wuy jeexe it dañ caa war a jéem a góorlu war caa gën a gën a bàyyi xel muy sellal gi ak muñ gi ak dimbalante gi mu am nag meññet moo xam ne suñu boroom moo ñu wax ne mooy meññet mi gën a am solo ci koor gi muy muy muy attaqwa mooy bu koor gi jeexee ku woor dëgg la ñuy xamee sax nangu kooram mooy mu gën a góor góorgóorlu ci ragal yàlla ndax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna moom la daaneele laaye ragal yàlla googu nag sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xamal nañu ko ci dénkaane bi mu dénkaane woon bi muy dem ci géej gi wax ñu ci ne dëgg dëgg ragal yàlla mooy taxaw ci ndigal yàlla yi ak tereem yi ba suñu boroom du la gis mukk fu mu la tere waaye fu mu la digal doo fa jóg wa xaqiqatu taqwa al wuqufu inda wa nahyi bi an laa yaraaka mawlaaka xaytu nahaaka wala yafqidaka xaytu amarak moo tax mu ne martaba bi gën a kawe ci ragal yàlla mooy moytandiku lépp loo xam ne day lor nit ki ci diine te mooy mooy yàlla fa bi takkuwa taqwa ijtinaabu kulli ma fihi dararun li amri diin wa huwa almaasiyatu walfudul mooy moy yàlla aki caaxaan aki neen kon ragal yàlla googu lu ama am solo la yàlla moom la dénkoon ñi jiitu woon dénk nu ko dénk ko ñëpp wala qad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah moom la dénkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa ayuha nabiyu ittaqillaha wala tuti al kafirina wal munafiqin moom la dénk jullit yi ne yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha xaqa tuqaati moom la dénk nit ñëpp yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum kon taqwa boobu di ragal yàlla moom la ñu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dénkoon ca fatxul mannaan wax ne uusika wa nafsi bi taqwallahi alazim li annahu afdalu min kulli shay maa ngi lay dénk ragal yàlla mu màgg mi ndax loolu moo gën lépp lu dul moom kon yàlla ñu yàlla defal meññat moomu muy ragal yàlla te kenn ku nekk man koo natt ci góor-góorlu ci ndigal yàlla yi di ko jëf di jëf la nga ca man waaye góor-góorlu ci bàyyi tere yàlla yi noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba dénkaane waaye noonu la ko suñu kilifa gii di dénkaane di ko soññee sax waxtu nekk mu ñuy sax ci ndigal yi di jëfe ndigal cay moytu tere yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla na yàlla jeexal mbas mii nga xam ne moom kenn ku nekk war na ci am taxawaay loolu it ñuy fàttaliwaale bu baax ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxe na ko mooy ñu sàmmonteeg lépp loo xam ne da koy day day tax du law mooy masque yi ñuy jëfandikoo ak raxasum yi ñuy jëfandikoo ak bu ñuy julli it ndigal yi ñu ci joxe ni ñu ngi koy fàttali bu baax baax rawatina julli ki gi lépp loo xam ne daal ndigal la kenn ku nekk na góor góorgóorlu ci boppam góor góorgóorlu ci njabootam ba defee ko ni ko sëriñ bi digle ndax loolu mooy suñu njariñul tey mooy suñu njariñul ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.